lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul soxna Jaara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 te jullit ngànnaayam li jiitu ci lum mën a def mooy ñaan euh, mbir lum njàng euh, lu mu garaaw garaaw euh, sun boroom a ko wàcce sun boroom a ko wàcce mu di tiis mu di mu di nattu ab jullit nag lim gën a am ci ngànnaay mooy ñaan dellu ci boroomam tuub ndax bari na ci yu ñuy dal yoo xam ne sun sikku bopp ak sun ayibi bopp moo ñu ko moo ñu ko yóbbee te liñ naan ñax gu wow dana lakk gu tooy léeg-léeg mooy am am na ñoo xam ne seenu sikk mbon bon yi ci àdduna bi te ku xam nañ ne àdduna bi dafa fees dell ak mbon mbon ñuy def promotion góor jigéen léegi bëgg ko banaliser ñuy def promotion dégg ngeen fi ci at mi ñoo xam ne dañuy tere julli sax seen barabu liggéeyukaay euh, soxna yuy muuru ci ay école ñu leen koy ñu leen koy tere donc loolu nga xam ne dañ koy xeex lu baax euh, ak mbon yi law ñu di ko def promotion fésal ko di ko banaliser bari na ci loo xam ne euh, lu ñu dal ci natt looloo ñu ko teg waaye nag li am solo mooy ñun jullit moom nañ tuub dellu ci suñu borom te ni ko du mun taxaa diglee ñu jàng alxuraan tuub dellu ci suñu borom euh, gën a góorgóorlu ci lu baax réccu li ñu weesu ci ay mbon mbon te tuub gën a dellu ci suñu borom waaye téewul nag ñu boole ko ak li autorité de santé yi ak borom xam-xam yi wax ci prévention ñu def ko ndax jullit it loolu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi ab bédouin masa ñëw euh, indi gileemam bañ koo yeew ñëw yonent bi ne ko sa gileem gee lu tax yeewoo ko mu ne ko dénk naa ko yàlla ak yonent bi su Seydina Muhammad da ko demal nga yeew ko ba mu dëgër nga soog koo dénk yàlla ak yonent bi kon jullit day sabablu kon euh, jàngoro ji nañuy sabab lu mucc ci waaye xam nañ ne sunu borom a ciy musle waaye teewul ñu sabablu nañ sabab lu mucc ci euh, li autorités yi wax ci ne euh, na ko nit ñi moytu ci wàllu nuyonte beeg euh, saafonte beeg lu ci bari nga xam ne xëy na ak bokk ay raxasook lu ci bari loo xam ne daal xëy na wàllu hygiène la yu demee noonu loolu lépp nañ ci bàyyi xel di moytu luñ mën a moytu ndax ab jullit day sabablu te du tee ñu wàkkirlu ci suñu borom te ñu dellu ci suñu borom tuub jaamu yàlla ñaan suñu borom musal nu ci